ça ni ca renforcer quoi. parce que ki nga xamante ni xam nga li ñu naan ki lakkle ba le moo la mun a wax nu lakk mel. Mhm. Mhm. sérieusement le président Diomaye n'a pas d'excuse. moo tax ma ne la comprendre na mandaawam bii mandaawu lan la déjà comme ni ko suma yaay doon waxee. Paris rafet na lool waaye xëyul sotti ci benn bés. Mhm. <coughs> te gis nga dëkk. ay jikko ñoo koy tabax suñu tabaxee li nga xamante ni c'est le plus important muy un état de droit su boobaa développement dafa yomb su ma yaay daan na ma wax naan ma ku jur yërëm ku jënd sa kanal bopp du bët du yenu waaye xam na lu bopp attan elle me disait tout tout ça mais tey laa koy tey tey tey laa koy gën a gis importance bi ak gis bi dégguloo may la bi ma dundee bi ma dégloo discours président Diomaye bi sérieusement dama amaat assurance à cent pour cent je me suis dit que ah ce gars il a compris Diomaye a vraiment compris li nga xamante ni mooy mission ci son premier mandat mooy li Cheikh Ousmane wax est-ce que xam nga ni Abdou Khadour li Cheikh Ousmane wax ne euh, kii seetul loo xamante ni moo koy jox deuxième mandat mais booy xool politiquement li muy def nii bés bu ko defee moo koy jox deuxième mandat mm-hmm. lii muy def nii bés bu ko réussir mooy tax ñu ne Pastef dina fi mën a régner fii ba cinquante ans mm-hmm. Abdou Khadre daf la ko tontu ci wet gi ne la un peuple et il est reconnaissant mm-hmm. un peuple est très reconnaissant et cela est vrai Sadio Mané bi mu ñu fi jëlee les coupes d'Afrique tout le monde était fier de Sadio mane et tout le monde le remerciait bon toute l'équipe mais Sadio Mané bi porté woon bootoon équipe bi et assumer ay responsabilités ba indil ñu coupe d'Afrique mm-hmm. il a été applaudi et remercié par tous les Sénégalais président Bassirou Diomaye Faye actuellement dañu nekk dans une compétition dañoo qualifier phase de poule compétition bi mooy lan mooy tey jii nii am na benn benn un mois boo xamante ni dund nañ fi lu tar Afrique yëpp naan ba lee yéen ay doon yéen a fi doon bàkku naan pays de référence pays de dugg na fii yàqu naa mhm. yàlla dimbali ñu ñu ñu ñu ñu qualifier qualification Côte d'Ivoire bi maanaam qualification Côte d'Ivoire bi mhm. waaye ñëw ba jël ba yegsi nag ci final bi desul lu dul jël coupe te jël coupe du lenn lu dul lii kese ñëwal nga réglé waat yëf yi narant yi jub réglé waatal affaire yi li nga xamante ni mooy gangrené la société li nga xamante ni moo ñuy sonal muy ay élection yoo xamante ni dañ ko jël dé buur daf ko jël dénk ko ay nitam muy une boo xamante ni amul indépendance buur moo ci teg loxoom di ko nappee ay di ko xoqatalee ay opposants wam di ko di ko di di ko te ci discours sax mu ngi koy wax les opposants seront protégés dinañ leen protéger ba nga xamante ni dinañ mën a di ba ba waxaale ki sax financer aussi financement des partis politiques financement des partis politiques dinañ leen jàppale ci seen financement yi man dama am sama benn <laughs> benn xarit sama benn xarit bëgguma tudd turam ci régime bii la nekk mais c'est un jeune très très donc euh, dafa posté sànq rek dafa ma quoi mu ne nous autres opposants nous avons du pain sur la planche <laughs> s'opposer face à cet homme va requérir énormément d'intelligence de lucidité de hauteur <laughs> et de circonspection enfin une opposition de qualité naîtra les aboyeurs laisseront la place à la contribution utile au verbe riche et à la bonne critique Monsieur le Président de la République apprend vite et ne perd pas son temps. Donc à <laughs> nous de suivre la cadence pour que la prééminence suive de partout. sa waay ko lire ma xam ne kii au moins bokk na ci ñi nga xam ne nii. il a compris. ñu comprendre parce que kii parce que kii daf leen invité ci débat d'idées. kii daf leen invité dans une opposition politique ci ci retraite lañ jëm dans une opposition booy bi li wax dëgg la de mu ne débat yi des na tuuti mu ne ma jibi des na tuuti di nga di nga manqué invité de ndax xam-xama nar nekk koy jëlee xam nga yan invité ngay am des na tuuti xam nga yan invité ngay am des invités yoo xamante ni dañuy ñëw peut-être pour xamal sénégalais yi fi projet bi toll fi programme bi toll bi bi bi jomaay defee tant tant de mois ou tant d'années invité yooyu ngay ngay am ak des invités yoo xamante ni ñu ngi ci loo xamante ni loolu la projet bi woote loolu la programme bi woote des sénégalais yoo xamante ni ils sont indépendants des sénégalais yoo xamante ni depuis belle lurette ils ont envie ils ont envie d'accompagner les états mais musuñu leen may opportunité par exemple nous en 2013 2013 2014 bi ñu Macky Sall euh, defalee ses propositions yi bañ kii ko après dañ ko demandé waat une rencontre mais après xam nga lan lañ ko wax dañ ko ne nous voulons vous accompagner ci li nga xamante ni mooy l'emploi des jeunes et la formation des jeunes et sur la et une politique de citoyenneté boobu nous avons un projet boo xamante ni les terres cultivables no cultivées qui sont qui sont dans le Waalo mooy bi fi fiy pro bi mu fiy jaay euh, l'autosuffisance alimentaire on était parti rencontrer les les les les les les marchands ambulants yi nga xamante ni ñoom ñëpp c'est à cause de l'exode rural qu'ils sont aujourd'hui à Dakar ñoom ñëpp ñu ñu nañu pare nañ pour retourner ci tool yi oh. ñu defoon benn plan d'action boo xamante ni on allait faire travailler au moins dix mille dans les champs ñuy am un salaire boo xamante ni ça va leur permettre d'être fiers jàppali seen bopp jàppali seen i waajur jàppali seen i ñeñ ba pare Sénégal dootul outil li muy nekk ci biti teg programme ba mu baax mais xam nga après lan lan la ko lan la ko gaayam yi wax bés bu fi booy yi réussir bés boo bàyyee bo yi ñu def lii ba réussir ko après fi ñu jëm mooy dañuy laaj pouvoir wal je t'assure laa la waxal ni donc kii nag comprendre na ni des gens comme kilifa bëggul lenn lu dul tey jii suma rakk yi ak suma jarbaat yi dañ ci war a génn moi c'est ça mon combat man sama combat mooy ñi nga xamante ni dañu nekk ci diaspora bi bëgg am envie investir retourner fii ci Sénégal seen xaalis yi nga xamante ni ñu ngi koy gañe foofu ci réew mi ñu koy ñoŋal ba nga xamante ni buñ ñibbisee dinañ ci gis seen am fitu ñibbisiwaat fii ci Sénégal yooyu mooy combat yi te bëri naa fi ay morom comme ay Cheikh Ousmane Diawrigne Ndiassé voilà ñi ci ñi ci kii bi yëpp les les les les gars vont se signaler. en politique il faut être généreux c'est ce qu'il faut dire au régime de Macky Sall que en politique. la générosité en politique ne profite qu'au peuple. parce Euh, heure bii may wax ak yéen donc euh, moom laay xool nii di xaar mu def zéro ndax lii buruxtu buruxlu la benn entre parenthèse mais buruxlu bu am jom la ci biir émission bi mhm. parce que nii nii maa ngi ci 4 avril 2024 waay donc nii may wax ak yéen dafa am zéro heure dafa jot moo tax yow André ñëwati na de bu moom heure bi mu ñëwee moo baax sax heure 4 avril la ñëw nee na ma nee na ma nattu nattu baaxul gaare naa sax sama oto ndax émission bi. ah nee na André nee na ma damay siiru deux jours yi. André di nga yéex a am versement rek. mais kontaan nañu. waaw kontaan nañu parce que kuy wax lii donc déjà ah, lii moom euh, puisque zéro heure moo jot donc je vraiment rek euh, ah, tour de table bu gaaw ah une minute une minute après ma ñëwaat ci yow Dieuwrine Ndiassé ndax sa tour sa tour waa sa sa heure bi nga war a wax la moo tax donc ci 4 avril rek ah donc espoir si naa juddu donc yow laay njëkkee rek pour une minute après dem ci Abdou dem ci Cheikh Ousmane plutôt dem ci Abdou soog a dem ci kilifa par rapport ak 4 mooy feetu lan indépendance. waaw ku nekk sa xalaat rek chacun y va de son manière. kañ lañ defoon élection yi le 24. 24 mars man mooy mooy sama feetu indépendance. mooy yow sa feetu indépendance ah. lu tax. parce que dëgg dëgg dëgg dëgg man ci laa jàpp ni ci la ñuy doog nag jot réew mi. parce que man yi fi amoon yëpp ay contrat la woon. Mm-hmm. ay contrat la woon ay peau blanc masque noir rek ñoo doon diriger Sénégal. ñoo doon diriger tey nag ñu ngi doog a jot suñu dëkk. waaw vraiment. loolu mooy sa analyse. loolu mooy sama analyse merci beaucoup ci 4 avril bi nii laa koy defee ak <laughs> une minute rek. Cheikh Ousmane 4 avril donc zéro heure jot na kon maa ngi ci 4 avril ñu ngi ci 4 avril 2024. Sénégal ñuy wax ne mooy jouru indépendance am donc sa appréciation. ci ndax ca la ñu moomoon suñu bopp. ginnaaw benn lutte acharnée yoo xam ni génération yu bëri mën nañ ko. <laughs> mais 4 avril bii dafa am lu ci spécial. lan moo ci ak yi ci daan romb. Mhm. mooy bii dafa fekk les sénégalais le pouvoir nekk ci loxo peuple bi. Mhm. peuple bi marqué souveraineté am attention donc avril bi ute naa yeneen 4 avril bi. Mhm. bii dafa fekk askanu Sénégal ket bi mu amul depuis un bon temps mooy souveraineté am boobu noonu. mu nekk ci loxoom. pour une première sénégalais jàpp ni ils ont élu un président du peuple par le peuple et pour le peuple pour le peuple c'est koo xam ne du lobby du multinational mhm. du grande puissance du benn intérêt moo étranger wala intérieur moo nekk ci ginnaaw moo nekk ci ginnaaw lu dul askanu Sénégal mhm. te li ci doy waar mooy y'a même pas un mois ñaar ñi nekk tey ci bopp réew mi ñi ngi woon kaso. ñu ngi woon kaso. tey ñoo nekk ñaar ñooñ ñoo nekk ci bopp réew mi. Mhm. parce que askan bi moo porté seen candidature askan bi moo leen porté au pouvoir. Mhm. président Diomaye ni mu faloo en la en laps de temps ci ku génn kaso askan rek ko mën a defal nit. Mhm. benn lobby munu ko benn puissance mënu ko. kon 4 avril bi dafay marque une nouvelle ère un Sénégal souverain indépendant. économiquement financièrement ci yu bëri. am na solo waaw dëgg-dëgg. kon 4 avril bi Cheikh Ousmane yow sa jàngat loolu la. waaw merci beaucoup Abdou Khadre Coulibaly. 4 mhm. avril tey jii la de. rendre un hommage mérité. à aux forces de défense et de sécurité. d'accord c'est leur fête. Mmh. la fête du peuple ah, également. Euh, bi nga xam ne moom la ñu am euh, cette année. Mmh. c'est forces de défense forces armées au cœur de la cohésion nationale. Mhm. pourquoi parce que Sénégal am na lu mu traverser mhm. am na lu mu traversé boo xam ne euh, forces armées yi bu ñu nekkul woon une armée républicaine pouvoir bi tëb na bu yàgg au mains des des des des forces armées c'est pour ça que aujourd'hui euh, jibi mhm. on est non seulement fier du peuple sénégalais mais on est fier de notre armée de manière générale force de défense et de sécurité d'accord beneen bi mooy il y euh, euh, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la couleur mooy lu jëm ci wàllu sécurité mhm. lu jëm euh, ci wàllu justice ba tey mhm. mais lu mu ci mënti demee rek cohésion nationale bi nee na engagé wu na ci pour assurer ko donc aussi bien l'armée le peuple sénégalais war nañ ko ci gunge parce que bu loolu amee rek sa profite au peuple sénégalais. merci beaucoup Abdoul Khadre Coulibaly tour de table bi kon euh, kilifa ci des mais en attendant. non non ah, kilifa fu mu nekkoon yéen kilifa lan la nekk nii. kilifa lan mooy problème mu kilifa. en tout cas bon fête à toute la population sénégalaise ci 4 avril bi ñu nekk waay. yàggale waaw bokk ci le dernier album qu'on a yow yow yow kay mënoo nga ma ko tegal nii rek mu dugg ci kii bi ba du duñ ma fay ay droit d'auteur rek yooyu noonu. déedéet non ba kenn ah damay bañ waa YouTube yóbbu ma foofu di. yaa ko teg yow buñ la fayee mu nga màkk. <laughs> maa bëgg indi li jafe-jafe rek. ñu ngi bu ci ñaan. waaw bu leen mm. fàtte ci ñaan ñi nekk màkk ñëpp. <laughs> donc euh, si c'est au niveau de la régie kon ma déglu li may li may forcé ni euh, xaw ma sax lan la donc euh, kilifa su fekkente ne du côté Aziz Abdou Aziz comme Issa bu fekkente ne baax na ngeen wax ma su baaxul ma dem mun naa dem kon dafa mel ni yembagul de donc kilifa dafa mel ni yembagul ayca kilifa. kon gérer ma euh, loolu. je je branchement ci suuf. branchel ma ko. foofu noonu man man mën ko man mën ko am. mais en attendant man kilifa di man kilifa daf may dugal ci lu ne. ah ngeen comprendre quoi ah, ma nuyu sama gars yi. la war a mën. waaw ma ma yeggale ah. sama gars yi kon ma nuyu leen. kilifa bu ma bul yàq sama émission kilifa. c'est boo amee ñu tëradi dama mënul ci ñoom dara ngeen baal leen ngeen baal ma de ah yéen ñi may kilifa la de. moo may yokk xalaat fii. léegi laajal ma leen <laughs> seen émission bi dina rey yeneen télé yi rek ah ñun de ñun de lépp rek ngeen bëgg ngeen bëgg rek ah Nanet maa ngi lay nuyu yéen ñëpp <laughs> Aram Diop ah Ami Ndiaye mi naan nuyul ma Cheikh Ousmane. <laughs> lu dégg fii dégg yéen da bëgg ñurul ñibbi tey waaye maa dama sonn ci sama sama gars yi noonu dañ lay daj mais en tout cas ils sont incroyables ñoom Khadim Nginga ah, Ninki Nanka Thiané Dieye Cissé Moustapha ah yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaara Iba Mbaye ah ah yéen ñëpp nuyu naa leen Martin Luther King Aham Diop Khadim Seck Nanette Lopez Cissé Moustapha André Modou Ndaw Fatou Ndour Koulibaly on est fier du peuple sénégalais mais pas aux forces de défense et de sécurité déet waay <laughs> ah, Thiané Dieye <laughs> Landing Sané ku nekk ak sa xalaat ah, nii la de eh, kilifa bu fekkee yem nga rek nga wax ma mais en attendant Banda Thiam maa ngi lay nuyu donc euh, Iba Mbaye Badara Silla ah, Cissé Moustapha euh, Amadou Strong Mor Touré yéen ñëpp ah nii laa leen koy defalee saa su ne di leen ziyaara ndaxte man ak yéen ñooy defandoo émission bi ensemble Moustapha Traoré ah euh, kii di mm, am na tamit ñaa ñaa depuis Italie euh, moom suma suma xarit la bel noble yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu Modou Mamadou Sané. donc ñoom ñooy yem. waa jibi si kooku suma turandoo la tout à tout à l'heure c'est bi ñu taxawee fële man ak yow quoi euh, vraiment je ñoom Cheikh Ousmane euh, Diawrin Ndiassé Abdou de par ma voix en tout cas nos internautes ñun dañu am benn catégorie d'internaute boo xamante ni macha allah bagage kese lañ ba pare euh, ils participent ils sont intéressants ils sont futés des fois da nga ciy gis ay commentaires yoo xamante ni sérieusement <laughs> da nga naan tiens kii balaa ay wax sax moom xam na li ma bëgg a wax wala oriente na ma ci ni ma war a waxee et vraiment lii rek ça prouve que ni le Sénégalais est prêt pour le changement lii ça motive ça donne envie wallaay non c'est-à-dire gis nga nit ñi da ngay gis ci seen kanam yi la joie de réussite la joie de sa waay ndekete affaire bi dafa am lu ko bloqué woon te débloqué wu na. Mhm. tey jii nii dama gis léegi benn commentaire et c'est pertinent. Mm -hmm. quelqu'un a dit que ni pourquoi pas à chaque Sénégalais de cotiser à partir de fu dooleem yam 1000 francs ba 10 mille francs suñ ko dajalee 18 millions de Sénégalais ça va faire combien de milliards. et qu'on remet ça au gouvernement de Diomaye ne ko le peuple moo moo la jox lii pour ci liggéey bi nga sumb yooyu yëpp day gën a challenger le président yooyu yëpp dafay tax le président xam ni man sama peuple bi ils ont compris te dafay ne te dafay ne les détracteurs yi nga xamante ni dañoo foog ni sénégalais yi dañoo fal Diomaye pour xaar ci moom un an deux ans sénégalais yëpp am liggéey non non non non non non les sénégalais ont compris xam nañ ni 64 ans de yàqu-yàqu mënuloo ko defar ci 5 mais Diomaye tey son discours il a rassuré parce que wax na loo xamante ni lii ku ko xam ku ko dégg di nga xam ni kii li muy wax mën na ne. Mhm. lu mën a nekk la ko ci benn man maa ngi ñëw en attendant gars yi di pare fële merci beaucoup ah kilifa ci contribution am solo boobu mais euh, sànq maa ngi koy wax hmm, dafa am man euh, ci biir euh, discours bi lu ma ci gën a amal solo man. mooy proposition bi concernant la rationalisation du nombre de parti politique et leur financement euh, jëwriñ yàgg nañoo indi coow ci loolu parce que Sénégal ñu ne réew bu ndaw la ci réew mi ni mu toll donc on a plus de trois cents partis politiques euh, le président Bassirou Diomaye fay di wax ci loolu donc baa du nekk chantier bu méttee defar. xam nga dafa ak élection yi. parrainage yi on avait avant parrainage yi on avait combien de partis politiques. 363 partis politiques moo fi yaa ngi dégg wax ji léegi euh, parrainage yi ba mu ñëwee ñi ñi jàll ñaata la ñu. 90 98. 90 ñoo dem retiré 18 a jàll. 18 ñoo jàll. 20 quoi 20 20 20. 20 ñoo jàll. 20 yi ba ñu ñëwee ci élection yi ñi jàll parrainage yëpp kenn amu ci un pour boo xoolee. <laughs> boo boo jënnee boo jënnee euh, Pastef jënnee benn bokk yaakaar ñi ci des dañoo séddoo ñaata pour cent lañ séddoo. pur ngay indiwaat moo moo ci am lu honorable loolu oh, ñaata pour cent la am. pur pur ngay indiwaat moo ci am lu honorable ñaata la am ñaata la am ñaata la